non non retiré vous c'est-à-dire man ne ci ko kay parce que affaire bi affaire ci. affaire voté CNG ministre des sports moo jilif. ministre des sports moom kan la mu peut-être qu'elle a voulu gérer en consensus. ci Sénégalais du pour bon il s'est trouvé que beaucoup de lutteurs. Mhm. et beaucoup de, de dirigeants de la lutte dañoo demoon choisir Malik. pourquoi le choix. non ñoom ñoo xam ñom ñoo xam pourquoi ñu choisir man nak demuma ci kenn ni ko kay jappal ma demuma ci kenn campagne ko demuma kenn man c'est-à-dire dama am dama xam fi lamb jëm. Mhm. parce que dama xam fa mu jógee. Mhm. melul woon nii ñoom ñooñu ñëpp xamuñu fan la joggé man dama fekkee bi fi mu jógee. ba fi mu yegg si kon donc duma dem ci kenn nak ko kay jàppale. dan may wóolu dénk ma wóoluwun ma ma xam ne wóoluwun ma mais bu ñu xooloon parcours yi parcours parcours parcours mhm. man dinaa bokk ci ñi nga xamante ne ni ñoo gérer làmb bi mais nag meruma nag meruma nag mhm. déedéet meruma mhm. am ministre bi choisir na yàlla na Malick réussir mais candidat bi ndax Bécaye bokkul appuyé woon na ko carrément sénégalais yëpp xam ni Bécaye bëggoon non déclaré naa ko rek Bécaye kandidaa la mais nag pour di jóg di ko dox ak di dem fee di dugg fee di bu kaay jàppale maag non non non non même ñi nga xamante ni man dama leen représenté dama ni leen toog leen nag dinañ xool ñoom kan la ñuy jox làmb ji hmm. mais jox nañ ko Malick mais yàlla na Malick réussir parce que man def nañ ma pour ma conseiller Malick dinaa bu ma amee xel mu ma rafet <laughs> ma jox ko Malick lan lan nga gis ci mbër yi nga xamante ni bëgg nañu

ñoom mën na noo fexe ba loolu dootul am waaye loolu ay texte la erreur lan de. Malick mënu ci dara. ñu jàpp ne ay réforme dina dama ni Malick mënu ci dara. yan réforme lamb ji amul problème wax naa ko ministre bi keroog bi mu toog ñoom ñuy bañ mooy dagg yu metti dan leen di dagg saafara bu subaa dinañ leen dagg bu ginaaw subaa dinañ leen dagg lamb jii di ñëw dinañ leen dagg bu dee ni <laughs> tegunu ko ci yoon am na mbër yu bëree ba mu Tyson da daan bëree mu jeex kenn du ko dagg Yékini da daan bëri kenn du ko dagg. Mhm. pourquoi parce que da ka daan teg ci yoon bu ñu ko tegee ci yoon kenn leen dagg mais bu ñu ko di dagg des grands. Mhm. ah oui li ma gisee mbër yi di choisir seen candidat te mbër ki ni atte kay du choisir ki kay ki kay atte ki waaw loolu na xam na lool nag même bu ministre bi taxawee nii na mondu lamb waxtaan seen biir amateur yi nu choisir mais nag maa ngi lay yëgal leen mbër waru ci bokk ministre bi choisirul Malick parce que mbër yi am na noonu moom de ministre bi Malick mooy candidat am moom la fal waaw kay mooy ah bien sûr bu ko bu du loo noonu candidat <laughs> am dina ko fal. <laughs> kon kay du jaan wax dëgg la. ah non li du jaan jekko wax man ça ne me regarde pas du jaan jekko am na waxam man am naa sama wax sama wax mooy ministre bi choisi choix am mooy Malick Ngom moom la wone moom la teg ñu ñaanal Malick mu réussir du jaañ nag la mu wax xalaatu boppam la te en démocratie nag il faut respecter la parole des autres. Père Bécaye xam na Malick Ngom bu baax gis na ko mu arbitré lu bare bare bare bare ndax gis nga ni. choix bu baax la ci seen jeu. ça dépend baax bi mu ngi jëm ci li li muy wane ci kanam xam nga nit mën nga kaa ba ñëw wóolu doo ko classé ci match bi nga dugal ko mu dugal deux bi trois bi. Hmm. waaw Malick xëy na

Ah, lillaahi maa ngi lay yëgal coow lee bàyyi mag mbër yi nga xamante ni seen intérêt la ñuy dund nga may wax wax mbër mbër yi xam nga lu bëgg ku leen bañ a dagg te duñ def jub ah, loolu waaw duñ jubal ba pare ba bu du ma jubal mais bu ma dagg hmm. mais mënta ne kenn moo la nu may conseil ministre bi da laa xëy gis euh, décret la xaw ma nun koy tuddee xaw ma ah, euh, leneen di ma gis sama tur. Hmm. mais est-ce parce que du jaay jekkoon nee na mi ngi doon dafa jékki-jékki kenn woowu ko. woowu nu kenn man de kenn woowu waaye nag quand même du ma fi nekk di xeex ay ay ministre fal na maa ngi may démission non non nekkuma ci yooyu. waaw nekkuma ci yooyu je suis un diplomate mat suis un démocrate. Mhm. citoyen sénégalais te man lu ñu def ci réew mi am naa ci baat. bien sûr waaw quand xool na ne am naa ci baat ma dugg ci. bien sûr waaye seetu ma fi nekk fii di jéem a indi ay tendance ak ay non man aw ma boobu te jot <laughs> man aw ma temps boobu. Eh. waaw man damay liggéey. Eh. voilà man damay liggéey ne yor suma télévision di liggéey nekk ci làmb depuis 97 ma nekk ci xam ci am ci ak expérience damay maye xel. Hmm. waaw man damaa maye maye maye maye lu bari. Hmm, hmm. waaw ci loolu laa waaye ne fii di mu ne fa ma dem fee bu ma neexul xam naa ni may def. <laughs> d'accord Père Bécaye nu mm-hmm. jógee ci élection yi am solo yoo xamante ni euh, sénégalais ñu doon tànn ndaw yi leen fas yéene teewal ca pencum ndaw réew ma nu euh, seetlu ci élection yoo xamante ni nag examen la woon ci opposition bi ñu bare nag jàppoon ni xëy na ñoom am na benn examen boo xamante ni buñ ko passé woon bu passé examen bi mën na leen xalaatal lu bari ci kanam waaye tamit doonoon examen tamit aussi ci régime bu bees bi ndax sénégalais yi leen faloon 54 pour cent leen waraat ginnaaw wala boog ba léegi dana am kóolute ci ñoom nu gis ni mu demee euh, ban jàngat la ci def. jàngat bi ma ci am mooy féliciter le peuple sénégalais. Hmm. vraiment suma réew dama kontaan sama réew réewu démocratie la bi nu voté ba ci suba ga ma génn dox ci mbedd mi gisuma koy wax waxi politique gisuma hmm. koy dox doxu politique gisuma hmm. ku nekk nekk ci sa kii daan dans les grandes démocraties parce que moi j'ai fait beaucoup de pays mm-hmm. dans le monde yoo xam ne dama fa daan toog élection am le lendemain du ma gis dara mm-hmm. damay féliciter le peuple sénégalais mm-hmm. ci maturité bi nu am ci démocratie Voter ci jàmm kérok amul ben problème bu jëkkoon da nga daan voté ñu naan la encre indélébile. dégguma bien sûr ñu naan la non non liste yi fee juróomi paquet ta fa nekk. fële ñeent a fa nekk gisuma ko. dama daan gis ay élection ñu naan voilà gis nañu ya ñee ña ngay añ ca bureau ba ba mu paree sol kees gi gisuma ko gisuma dara lu mën a wax ni démocratie bi jaarul ci yoon mm-hmm. ñun est ce que ñun dañuy wut ay observateur rek bu dee ne am nañu ay kilifa yu honnête jaratul wut ay observateur bu dee ni lii mu fi am moo fi am jaratul wut observateur man li ma gis mooy voté nañu opposition bi a jaaraama waaye nag li Sénégal daan def la def Sénégal deful dara lu fi bees. fal président wutal ko assemblée nationale bu mat sëkk. Mhm. jox ko mu liggéey. loolu moo Moussa am. Ah. moom lañ defal Abdou Diouf. moom lañ defal la Wade moom lañ jox Macky Sall moom lañ jox Ousmane Sonko. te Senghor it looloo fi amoon Ousmane Sonko bu nu falee Diomaye président de la République quatre-vingts pour cent yi c'est Ousmane Sonko il faut l'accepter. donc moom bu demee ba Diomaye yàllaay dogal. Mhm. ni Diomaye yee nekk président Sonko du nekk président Diomaye yee nekk président teegi Diomaye nekk président jël Ousmane Sonko jox ko ni ko liggéeyal sa projet mu ñëw proposé ko Sénégalais yi Sénégalais yi la majorité dem ànd ak moom waaw loolu duñ sant yàlla. Mm. te ñaanal leen ñoom ñu jéem a amaat te xam ne léegi coow li jeex na wax amatu fi bu nu fi kenn la jëlati. débat yi bari na coow li bari na mais nan leen may le temps mm-hmm. vraiment. nous dérouler ce programme Nous avons assemblée nationale qui nous réunit. réunis li di